ça se passe actuellement à la salle de vente de Dakar la ilaha illallah la ilaha illallah à l'instant même ça vient tout juste d'arriver à peine secondes tout est pris en feu oh Allahu Akbar non, ça je pense pas لا اله الا الله Pega com o pega com. لا اله الا الله Vai ter chaleur bi kay koy mandi si La salle de vente est prise en feu, la salle de vente de Dakar. Tout est Tout est parti. en quelques minutes tout est parti allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah auzu billahi minan naar dama yàlla musal si déplacé leen oto yi déplacé leen oto yi je pense que électricité bi coupé nañ ko je pense bien borom moto bi na ñëw jël moto bi